jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee amoon mbégte contentement saa su ne di ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di Dakar Live TV bokkee xarit yi leen koy faral di defee chaque fois di leen indil li nga xam ne moo di émission bi nga xam ne a ko leen koy nga xam ne moo di actualité mais aussi di leen indil li nga xam ne xam ne dafa gën a fës ci réseaux sociaux yi mbokkee xarit yi ñu ngi leen di nuyuwaat di amaan mbégte bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko ci yéen noonu lañ koy ñaanalee kilifa diine kilifa aada képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi nga ngi am jàmm rek ñu ngi lay ñaanal jàmm ju sax dàkk duñu leen euh, fàtte benn yoon waaye tamit euh, yéen ñi nga xam ne yéen ñu safoo di ñu topp ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax di jégalu bu baax ci gëj gee gise gi waaye ci géej gee waxtaan gi aussi ci li nga xam ne mooy suñu émission bi mais dellusiwaat nañ ci jàmm bokk xarit yi ñu fas yéene li nga xam ne moo di Kabou Danse tey nag ma ànd ceeg ki nga xam ne euh, mën naa leen ko présenté mu nekk koo xam ne nii tey moom laa fas yéene feggoog ñu waxtaanee li nga xam ne moo di émission bu Kabou Danse gën a yaatal ci li nga xam ne moo di actualité kooku du kenn ku dul Penda ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi lay siyaar bu wér a wér a wér. di la bàyyi nga nuyoo mbokki internet yu Dakar Live TV. ok maa ngi lay nuyu bu baax a baax di leen ziar. Mm-hmm. Dakar Live TV di leen wax ne leen euh, dal leen ak jàmm ak salaam. Mm-hmm. ci li nga xamante ne moo di cas Bourence ah. ayca nuyu naa kilifa diine nuyu kilifa aada comme ni ma ko baaxoo di defee rek. Mm-hmm. nuyu ñi nekk ci prison yi ayca ñaanal ñëpp jàmm Sénégal yàlla na yàlla dolli jàmm. ayca ñu doxal. ayca a moom la ñu duppee cas bu danse fu ne mhm. waxtaanee cas yi nga xam ne moo lëmbe réew mi xam nga réew mi fi toll ni daa bëri cas mhm. maa ngi lay siyaar bu baax a baax ci déplacement bi euh, ñëw mhm. a li a mbokk yéen tax ba euh, ak euh, Alioune Badara Mbacké mu nekk coow xam ne nii mën nañ jàpp na coow xam ne ni viral na jamono ji fi mu toll jigéen ñi ngi xëcc fii naan góor du projet góor ñaa ngi xëcc ci fii naan lu xew ñu def toor comme góor ñi en tout cas cas bi diis na lool ba Dieynaba mi nga xam ne moom di xarit bi nga xam ne moo doon seet ki nga xam moo di Albert Mbacké moom mi ngi ci loxo yoon jamono ji ñu toll waaye gis nañ ko ay photo ki vidéo yoo xam ne nii moom am na blessure yu tamit mm-hmm. ñëpp di posé question ndax jëkkër ko dóor mm-hmm. wala moo ko dal en tout cas cas bi diis na cas bi danse na waaye de toute façon dañ ko fas yéene traité waxtaanee ko ci li nga xam ne moo di anam bi nga xam ne moom lañ ko jàngatee waaye anam bi nga xam ne moom lañ fee li ci gën a fësaat tamit dinañ waxtaanee li ci mel ni euh, Pape Diouf euh, la génération consciente wala ñu mm-hmm. naan ko la leader de la génération consciente moom mi nga xam ne euh, dafa amoon tournée internationale national mhm. waaye bërki démb démb sax laay wax gis nañ ko mu signé ca ah, je m'excuse le leader mhm. comme ni ñu koy waxee ah, de la génération consciente moom doon na signé fële ca label bi ñuy wax ah, believe mhm. loolu nag dafa xaw indi ay coow yu ndaw yu ndawaan yoo xam mën na nañu du coow waaye coow la ndax mhm. naka euh, lu indi wax lu ne rek coow la moom mi nga xam ne moo di Pape Diouf bi mu signé ci loolu ba pare gis nañ ki nga xam ne moo di Boussa Ketchup indi ciy mhm. ne moo di Omaro mu Serigne Sarr yoo xam naa dañ koy woo en direct rek loolu dama koy bàyyee maas moom mu leeral ñu ndax plainte da koo jot wala mhm. jotu ko ginnaaw ba ko Nogaye Kara ak euh, Mame Ndiaye Savon taxawee en direct ne dañ koy porte plainte xam naa ni loolu moom moom Omaro dinañ ci leeral tey jii mhm. waaye am na yeneen point yoo xam ne ni dinañ ci gën a xuus gën cee yaatal mhm. waaye bi gën a fës mooy ki nga xam ne moo di diggante euh, ba ak ki nga xam ne moo di alin ba Aline Badara Mbacké Dieynaba nag mook Aline Badara Mbacké dañoo nekkoon doon sëy mhm. yàlla weddi ci kàddu yi Aline Badara dégg nañ ko muy wax ni kii di Dieynaba da ko doon topp di ko alsere di ko ko saaga ak di ko dox yu ni ba mu dem ba sës ndax nee na nit bu demee ba sës bu mënatul da koy kalaame nee ci la ko kalaame ci yoon daal di ko ci yóbbu yoon teg ko loxo bi nga jàngatee euh, booba di coow lañ ko mën a dippee daal ndax diggante te ce n'est pas la première fois ñu gis ko fii ci réew mi ndax bu yàggu dara gisoon nañ fi kaa bu mel nii ndaxte mm-hmm. ak ki nga xam ne moo di euh, Mario Mbaye waaye tey euh, cette fois ci Dieynaba mm-hmm. la ñuy wax ak ki nga xam ne moo di euh, Aline Mbacké ma mm-hmm. bàyyi la nga wax sa xalaat yi li nga xam ne moo di kaa bu nga xam ne moom la ñu jot démb ak bërki dem dëgg la ci diggante Dieynaba ak euh, noo man nag du ma dugg ci kaa góor ñi. Mhm. damay dugg ci kaa jigéen ñi. loolu. noo man ci jigéen ñi laa ah, far. parce que góor ñi boo xoolee lu baree baree baree bari euh, dañuy am li nga xamante ne mooy li ko olof di waxe mooy suuxat dañuy dañuy dañuy suuxat xolu jigéen. ah bon waaw. d'accord parce que tey bu ma ko dégloo am na ay jabar amul ay jabar. Mhm. dóor na dóorul. Mhm. jigéen yaay la. jigéen soxna la ci biir kër. dafa am loo xamante ne dafa rafetul. ci cas Alioune Badara li mu defee nii. Mhm. d' accord moom moo xam li koy matt ci digg lalam. Mhm. mais cas bi li nga danse mais danse na. Mhm. waaw danse na loo sax. mais bu nga ñëw directement ci euh, góor ñi euh, parce que da ngay wane ne jigéen nga. non. mais Alioune parce ah, ma xëy na mais ay ku jigéen xol day too ci cas Alioune Badara yi parce que jigéen dafa nekk loo xamante la ci mim réew. que man su ma amoon lu ma koy loo xamante ne man moom lay ci wax ci kawam pour wax ko pour mu bàyyi mooy mu retiré plainte am mm-hmm. parce que mënoon nañu arrangé defee neneen kaa ñuy egg ci plainte mm-hmm. peut doom juddu na ci doom judduwu ci mais dafa mm-hmm. ñaaw ci ëllëg waaw góor ñi nañ delluwaat seen xel bu baax a baax ci li def li dafa mel ni koy gis wala dañ koy fàttali suñu réew maanaam wala dañ koy dégg man boo gisaguma ko dama koy dégg rek daf fi bari ñu ne góor góor ñi dañuy dóor jigéen ñi dëgg la des fois jigéen ñi ñooy génn ñeneen dañuy sos ñun góor ñu noonu lañu jàpp da ngeen sosal. Mhm. te parfois am na yoo xam ne ay sosal da ngeen ñuy sosal nag. non parfois nag sos du ci am parce que bu dee mës nga cee teg sa bët sos amoon xam nga yow dangeen ngeen da nga mës a dégg. nga man mhm. damaa gis. yow da gis waaw dama gis. d'accord jigéen bu dóor euh, jëkkër day jàpp jabar dóor ba pare génnee ko ca xaj. Mhm. da ngeen am ay doom dafa ñaaw xale dañuy màgg ëllëg. dëgg la te way bu rafet moo gën way ñaaw réseaux sociaux yi nekk ni ñu ñi ci liggéey sax xamuñu mm-hmm. parce que un jour viendra nga dem ba sa doom yow tey judd mm-hmm. mais sama papa li def moom ma daan liggéey buy tàppee ñu ko koy def mm-hmm. dëgg bi dafay waar góor ñu nañ am yërmande ci jigéen tuuti la <clears throat> mais euh, bu ñu déglu Ali Badara moom ci boppam génn na di sorti wax li nga xam ne moom la doon dund jamono ji nga xam ne moom la bi mm-hmm. sëy bi parce na dund mm-hmm. léegi moom nee doon na jot ay message appel mm-hmm. ak vidéo yoo xam ne nii maanaam vidéo intime la yoo xam ne ndax da ko yor doon ko bëgg partager ak ñeneen voilà nee loolu moo ko poussé au mu mën a dem pour mu dem yóbbu ko ci yoon pour ñu ñu mu débarrasser ci yi nga xam ne moo di d'accord ma mooy tey jii da dem ba am sa jabar problème vidéo soog a feeñ pour lan est ce wax bu logique la tam hmm. wax bu tegu ci yoon la ah, a de war a nekk mais da ngay dem ba yow say sa jabar nga joteeg moom xuloog moom xeex moom doog a wax li ay défaut yi xam ne moom la la sa soxna nekkaloon est ce yaa ngi bàyyi xel li may wax maa ngi lay dégg bu baax tey da ngay nekk ak sa nekk lool un jour ñëw un jour viendra rek nga jotee ak man parce jigéen itam d' accord mais góor lan jigéen ñëw ci kër guddi matuñu jigéen parce que nag weesu ngeen def di n'importe quoi. parce que xam lu tax yéen góor ñi da ngeen a xeere. Hmm. kenn mënu a jot fenn fenn bu ñu leen xalaatee les yéen a ngi les ñu seetlu leen noor yéen a ngi sud ba bu dañoo non góor ñi yow wax sa mënta am. en tout cas loolu ñu wax benn rek tàppal na dañ leen ko wax jigéen ñaar. ba tey baax parce loo fi taxawlee comme jigéen rek. Hmm. noonu laa fi taxawlee comme góor. amul benn problème lu ma nangu ngay yàq ji góoru ni. non góor yàquma leen waaw d'accord gis nga ñu suñu loxo yi wutee la nit ñi wutee dëgg la am na góor ñoo xam ne teral jigéen am jigéen am na góor ñoo xam ne jàpp du ñëpp am mm-hmm. bu ci doom juddoo mm-hmm. nga war a bàyyi waat sa xel bu baax a baax mm-hmm. tey jii bu sa yaay nekkee ci kaso bi sa doom bu la nee an sama yaay loo koy wax est-ce que di nga wax mi ci kaso bi di am courage boobu noonu di jàkkaarloog sa doom di ko ko wax neexul dafa metti jigéen ñi sikk nañ torop mais nañuy muñal xel matul Mhm. peut-être dama jàpp ni mbëggeel moo ko poussé ci lii nii. Hmm. waaw. ñu si bëri nee nañ da koo bëggoon lool. mbëggeel moo ko moo ko def gis nañ Adamo tamit bi mu ci wax ci li nga mhm. xam ne moom moo di euh, euh, ay propos. nee na ndaw si mi ngi dëkk Kaolack te fa mu dëkk ci fa mu riis la dëkk. Mhm. da koo bëgg te yàlla tax moo tax. mais est que bëgg nit ki jar na tax nga koy topp divorce am na nga koy topp di ko harceler di ko menacer ak di ko saaga. ci nii nga xam ne moom la ko Badara waxee. Mhm. parce que Badara lañ dégg mu wax jamono ji déggaguñ femme bi mu wax. Mhm. déggaguñ euh, nu ma ko a waxee kenn koo xam ne ne proche la ci famille. Euh, mhm. femme bi déggaguñ ko aussi mu wax. en tout cas Alioune Badara moom xaw ma teggi na tuuma xaw ma teggiwu tuuma mais wax na sénégalais yi dégg. dëgg la ñenn ñi interprété nañ ko Alioune Badara li mu wax mooy dëgg li mu wax am na ñenn ñi ne nañ ko. dëgg la ku mu neex nga dëgg du dëgg parce que xam tax tey man. ci ni ma ko mën a jàngate mooy alin ba dara li tax mu génn wax mhm. man duma xëccoo pour te dire waru sax génn wax pour l'instant mhm. waaw parce que moom wax na mhm. mais suñu belle sœur bi nga xamante ne tey yoon daka teg loxo su génnee wax après na lay mujje dañ naan ba dara li mu waxoon de moo am walla kat soxna si li mu wax moo am non nit ku nekk da ngay juger ak sa xel ku ne sa xel nga yor ku nekk da ngay juger li nga xamante ne ni moom moo la doy. Mhm. mais moo dóor wala dóorul moo gaañ wala gaañul gis nga jigéen bu bëggee. Mhm. dalay topp ci foo ne. Mhm. ci loo nekk mën na la ci topp. da ngay dem ba da ngay localiser sa jëkkër fu mu nekk nga xam ko. parce que mbëggeel moo ko waral. ku bëgg mel noonu ku ba pare jigéen du bëgg day miin. d'accord jigéen. du la bëgg dalay lay miin. mais bis bu la wanee ginnaaw jeex na. waaw mooy cas bi. alors mu nekk lu am solo euh, foofu dañ fay desandi tuuti rek euh, dugg ci li nga xam ne moo di régie bi ñu doon xooli li nga xam ne moo di vidéo bi nga xam ne moom la Alioune Badara euh, ne fàttali nga léegi mu ne ko mm-hmm. fi mu xalaat bi di waxtaan ci li nga xam ne moom la feey. bu baaxee rek man ñu àndandoo seetaan loo xam ne wax dëgg yàlla bi. volume waay volume par message vue unique pensant que peut-être dama koy xool rek après mu dañ j'avais un autre téléphone parce que ba muy jógee Amérique dama àndaaloon beneen téléphone ma ko doon jël image yi ci foofu. mu def noonu def noonu def noonu def noonu. Euh, continué dem na Touba waxtaan ak samay kilifa. sama kilifa yooyu woo kilifaam le frère de son père ñu waxtaan ñu tas sëy bi si jàmm ak salaam c'était un samedi 12 mai 2024 ba ñu tasee sëy bi ci samedi boobu. le dimanche le lundi les jours qui ont suivi Dieynaba mel na ku ñu rakkate message sur message. ni continuer ba à un moment daal xam xaw na arrêté elle a continué sur ça pendant deux semaines trois semaines noonu ci mois de mai boobu noonu yëpp juin mujj man damay jékki-jékki benn numéro woo ma di wax ay waxi dox ma xam ne c'est elle qui ba affaire yi sësee ba sës xam na boobu sës na maanaam mu jëlaat photo yooyu nga xam yooyu plainte daal xam xaw na arrêté elle a continué sur ça pendant deux semaines trois semaine noonu ci mois de mai boobu noonu yëpp juin mujj gi elle prenait d'autres numéros man damay jékki-jékki benn numéro woo ma di wax ay waxi dox ma xam ne c'est elle qui est derrière jékki-jékki nag ba affaire yi sësee ba sës xam na boobu sës na. maanaam mu jëlaat photo yooyu xam nga xam nga photo yooyu plainte woon na ma ko police parce que ba pare mu jëlaat photo yooyu bind ci affaire yu grave wuy dama ko def nii dama ko séquestré dama ko yóbbu dafa ñuy liggéey ci procureur parce que boobu sëy bi tas na def mu ni kon xaaral ma yàq ko xaaral ma tas ko dafa ñuy liggéey ci procureur bi parce que boobu sëy bi tas na mu ni kon xaaral ma yàq ko xaaral ma tas ko xaaral ma yàq ko xaaral ma tas ko la justice bokkut ak la masse bokkut ak bokkut ak xaar ma yàq ko xaar ma tas ko. Euh, heureusement que la justice bokkut ak ñoom la masse bokkut ak loolu seen euh, liggéey nous sommes des spectateurs réseaux et autres ñoom xam nañ fi ñuy ba xam ndax sont des professionnels plaindre lii ngay kaas xam nañ fi ñuy jaar ba xam ndax yow ñi ñëw plaindre li ngay la am du dëgg dem déposé ko wax boole ci photo yi loolu li mu bind noonu les gens ont fait leur enquête boole ci photo yi déglu ma les gens ont fait leur enquête sama ma déglu chauffeur euh, euh, yi déglu sama bon sama collègue pharmacien boo may wax déglu ASP yi déglu sama collègue pharmacien boo may euh, wax gars yi ba ñu xoolee xool xam extrêmement ba ñu xoolee xool xool xam ne kii li muy wax loolu ñu classé ko te ci kaw ba si suuf loolu ñu classé ko. bon man jàpp naa ne sax calme na dina calme léegi. bon man jàpp naa ne sax calme na dina calme léegi mais elle a jamais cessé damay bloqué ba son chaque jour mooy bloqué numéro bu bees chaque jour mooy bloqué numéro bu bees. ba récemment en début octobre affaire bi mi ngi gaaw mi ngi mi ngi waaj a jeex merci pour l'écoute en début octobre mu jékki-jékki daal parce que bloqué naa numéro bu mu andi ma bloqué mu jékki dama doon gis sax jékki-jékki sax am un comportement

bés ñi may liggéeyal jékki-jékki naa bés rek sama bés ñi may liggéeyal jékki-jékki naa bés rek sama assistant jékki-jékki rek ñëw ñu ma ah dox man de numéro bi dafa ma doon jigéen la ma wax yu bizarre man ko ah bon ban numéro ma xool muy numéro Jenab ma gis ni kii naru ma bàyyi ñu ngi woote man bloqué naa mais fi léegi li ko dese mooy di woote sama entourage et cetera. ndax comme bi nga demee devant le juge est-ce que moom bi mu ñëwee taxaw. ndax comme tu te sens de prendre une femme boo xam ne tu t'es marié avec cette personne et yow yaakaaroon nga ne di nga ak moom yàlla weddi na sa diggante ak moom nga ne da lay harcelé nga yóbbu ko devant le avec ses blessures a eu ak tous les problèmes du monde a ndax bëgg topp xolam bëgg ndax li nga wax jigéen bu bëgg moo koy def jigéen bu la nobee day daw ba sonn loo ko mënti da kay tegoo déggoo ko yow tout ce que tu as mooy a débarrasser wu ñu koy jugé war a mën koo jàpp di ko incarcéré tëj ko ci koo xam ne dund na métti yow léegi naka nga mën a jàngatee loolu en fait man c'est ça moom mon souci majeur parce que boo ne moo gaañ boppam dafa daanu dafa expliqué dafa lii laa te moom mu dem taxaw ne que am ñu génn wax la version de famille ñoom am nañ ci wàll si ay parents am tamit am nañ ci wàll ñoom tam li ñu wax dafa leer mais yow aussi boobu ba léegi léegi. ba ma gisee ni nag affaire kii elle mu jël numéro privé ma ci woo di changer voix di wax di créer di et cetera ma xam ne lii vraiment trop c'est trop trop c'est trop te numéro privé mënoo bloqué am na benn week temps est passé en début octobre. alors mi ngi noonu euh, ñoo ko déggandoo mbokk internet yi euh, ñoo ko gisandoo euh, ki nga xam ne moo di Aliou Alioune Badara Mbacké. Euh, moom nga xam ne moo nekkoon ci live boobu nga xam ne Biggi moo ko organisé woon mhm. euh, dégg nga wax ji nga xam ne jot na ko wax ci mhm. digganteem ak ki nga xam ne moo di Dieynaba mhm. maanaam ci harcèlement yi topp bi di ko woote di wut ay ñu koy topp yooyu noonu yëpp gis nga ko ak dégg nga ko euh, naka nga déggee li nga xam ne mooy li nu mel lii nga xam ne moo di Alioune Badara moom la wax li ma waxoon sànq rek ci laay dellu si waat te duma ci reculer mooy dafa bëgg bëgg moo ko poussé ci lii lépp Dieynaba dafa bëgg est-ce que tamit divorce bi arrangé na ko. Hmm? waaw est-ce que arrangé na ko parce que jigéen bu bëggee déggoo ma ne la mën na fay sax lim ne cag-cag maan waaw d'accord day fay ko lay topp di xool ci lan nga nekk matin midi soir jigéen bu am suuxa ci góor mooy mel noonu. Hmm. man dama gis ni sama gis-gis jay na ba bëgg mbëggeel moo ko poussé ci lii mu def lépp ba tey li ko ci fekk fekk ko ci. moo tax Alioune Badara dafa waroon delloosiwaat xelam. Mhm. mais dégg nga question bi nga xam na ko te Sénégalais ko euh, li la Biggi wax est-ce que bàyyi na ci xel à 100 pour cent maanaam tey koo mhm. mhm. mu wër di la toppaat est tey euh, ak coono yi nga xam ne. am na ko dal na ko est-ce jar na nga ko yëkkati di ko def ay plainte euh, di ko ba yoon di ko ci téye. moo tax ma la wax sànq ma wax la ko. yoon wonu ci woon sax am. Hmm. am na problème bu gën a dans seen bos te yoo eggul yoon. mais est-ce ni maanaam ndaw si daf ko sonal dafa dem ba mënatu ko maîtriser parce que nee na moom ci biir wax ji woo na grand frère ko njëkk na ko. Mhm. waxal ci ndaw si mi ngi ma di ma di ma di ma woo mhm. topp. Mhm. ko expliquer waat ko ko. beneen bi moom ki nga xam ne moo di mbokk mi nee na ki nga xam ne moo di ndaw si jotu ko. léegi nag loolu moo ko sësloo est-ce que nekkul ne moom it euh, xam nga li naan lu ëpp tuuru. tey est-ce bëgg jar na yenn yi nit ki boo ko bëggee mu leer na tey yàlla moo dogaloon dogalutul. Mhm. est-ce que tamit doo dem xool leneen. mais lan moo indi tas bi. xaw ma. li indi tas bi dañ ko xool. ah en tout cas man xaw ma. li indi seen tas mbóot la mi ngi ci biir. mbóot la mi ngi ci biir li tax xale bu jigéen bi topp ko ne du ko bàyyi ak lan moo tax ñu sëy 3 mois divorce am nañ xool lan moo waral wax ji fi mu toll nii ci Alioune Badara rek la ñuy basé wu. moo wax. waa fi mu toll nii déggaguñ benn yoon jeena ba wax. te ba jigéen la dafa ne ci loxoy yoon mais bu génnee wax nga xam ni camp bi lii danse ci góor ñi la. du ci jigéen non non parce que ne fi mu toll nii lépp la. ah moom moo taxaw expliqué. mais boo tiitee da ngay génn wax. da nga jàpp ne dafa tiit. waaw dama jàpp ne Aline Badara dafa tiit. mais lan lay tiit. moom li ñu dégg. nguuru la. Aline Badara mi yoroo la la. mais ci suñu ne ki nga xam ne mooy Dieynaba jotoon naa mhm. preuve est li ñu doon ko boobu moo tax man la cas bi dafa luus li war a feeñ yëpp feeñagul. yow jàpp nga ne am na leneen lu war a. feeñ am na lu war a ñëw te Alioune Badara li mu war a wax yëpp waxagu ko. Hmm? Alioune Badara kay bu li mu wax nii bu ci doolee leneen kon ñun xaw ma. non dina ci doole leneen ndax xam dina ci doole leneen. parce la muy foog ak lii am du doon benn jigéen bu la meree ba sës lépp loo ko mës a lebal ci lu bon dala koy yebbi. mais est-ce jar na ko. ma ngay jël ay vidéo ndegam moom jar na ko ba mu ba mu. dem yóbbu ki nga xamante ne tey jii moo ngi teg ci loxo yoon Alioune Badara am na sœur. dëgg la. am na rakk am na mag. mais xam nga li Alioune Badara doon dund jamono ji ne néegu sëy neex na amul. mais ñu jël seen vidéo di ko tasaare ci réseaux sociaux yi. est-ce que gis ngeen ko. gisuma ko. man loolu laaj Alioune Badara moom moo wax Alioune Badara moo wax sama vidéo test man gis naa ne wan na moom capturé na ma wan ma ko moo gis ñi mu ko envoyé te Adamo a confirmé ne gis na vidéo ay ki nga xam ne moo di Alioune Badara. Hmm. waaw Adamo benn ci Adamo confirmé na. mu ne confirmé na ne gis na ay vidéo Alioune Badara moom na gis na euh, vidéo Alioune Badara. Hmm. waaw kon xam nga ni li muy wax mi ngi bëgg a nekk dëgg moom Alioune Badara. ah cas bi il ñu téye ci daal. Ah, moo tax ma ne la des na leneen luy ñëw. Hmm. cas bi des na leneen lu ñu ci war a traité que lii nii lii sax day tuuti nañ xaar ba ko jigéen ki génn nga xool kuy fay cag-cag mu di la topp di xam ndax yaa ngi sa kër wala nekkoo sa kër liggéey nga wala liggéey woo wàcc nga wala wàccoo la ma waral loolu mais mbëggeel moo ko waral mais doo ma bàyyi mbëggeel koo xam ne ni jeex na mbëggeel dong moo ko waral mais dëgg rek ngeen bañ a dégg mbëggeel la ko waral question de bañ a dégg dëgg mais on se dit la vérité dañ doon am na mais ku góor ki mën na doyal te ku jigéen ki du doyal. ah mais boo bu bu doyalee doo ko bàyyi. bu fekkee mën na est-ce que ko bàyyi. mais nga jéem pexe. ànd dafa am tàqali ko am bi sax ma ci ko xam. olof moo mais xam nga yéen problème bu ngeen am. Mhm. yéen jigéen ñi dëgg la bu ngeen bëggee. dañ mhm. naan da ngeen di gumba tëxloo c'est vrai. Mhm. dëgg la loolu euh, dañ koy nangu. dëgg la mais boo bëggee. ba nga xam ne li nga bëgg c'est impossible est-ce que tey jar na ngay def ay dégâts yoo xam ne après tey du ma ne moom Dieynaba moo def dégâts ba yóbbee boppam lii. Mhm. mais yaakaar naa ni tey yenn yenn yi mënoon na koo bañ a yóbbee. est ce que Dieynaba na ne bu defee lii lii dina lii dina ko ci fekk est ce ba dara Badara yaakaaroon ne wax ji dina egg si fii Alioune Badara yaakaarul woon ni wax ji dina egg si fii tey ba xamul woon ne tey jii bu temee ba ci biir lii dina ko ci fekk ba loxo ba yoon di ko ci teg loxo. diggante jëkkër ak jabar laa lay wax de. mais mais jaay na ba suuraale wut conséquences yi mu doon def comme yi ñu jàpp ne Aline Badara moom la ko moom la ko wax. mais Aline Badara lu mu ko def ba mu waral loolu lépp tamit nag. ah mais moom ñun Aline Badara li liñ ko li li kon jaay na ba doon def kaa bi dansagul gis kaa bi dansagul de. fan lay danser foo jàpp bu jaay na ba génnee ba wax wala ku takk ci famille jaay na ba génn wax su boobaa la kaa bi di danse. Hmm? waaw te en tout cas li ci gën a métti. Euh, xaw ma euh, trois trois mois de prison lañ ko toj xaw ma en tout cas. ak alamaan nañ ko xaalis ak alamaan mi ngi noonu dafa metti tam. alamaan nañ ko xaalis bu bari wax dëgg fa yàlla dafa metti képp ku ko mën a ñaan na ko ñaan mu dem retirer plainte mais mais mais yoon Aline Badara lay protéger parce que Aline Badara moo am ay preuve mhm. gis nga jaay na ba fi mu juumee mooy ci li mu waxagum jamono ji fu mu teggagum tànkam amul preuve. dëgg la nit ki même bu la dóoree te amoo preuve boo ko wanee mhm. wala amoo vidéo boo ko wanee yaakaar naa ne boo demee ci yoon amoo dëgg doo am dëgg dëgg la ndax dëgg la fi yoon nekkal. te ki dëgg mooy ki nga xam ne dafa am preuve. dëgg la waaw ba Badara nag moom fi mu ko gën a yeewu mooy que moom bi mu koy harcelé. Mhm. wala bu koy envoyé ay. kii da ko doon enregistré. Mhm. léegi nag loolu la yóbbu ci yoon. mais Alioune Badara est-ce que demul ba sonn ba maar doog a dem yóbbu vidéo yi ci yoon. ah est que ba muy neex yóbbu na vidéo yi ci yoon tamit. question de neex. non moo am problème am na. non ban problème problème bi la ko indi Alioune Badara la ak kan dëgg la. ok ah, mais couple bu dem ba divorce am xam nga loolu rek problème la. gis nga li sumbu divorce bi ñun xamuñu ko. dara leeraguñu ci. dëgg la li nga xam ne moo indi li nga xamante ne moo indi cas bi tey jii fii ñu war ko traité dara leeruñu ci. dëgg la Alioune Badara rek lañ dégg mu mhm. la cas bi balaa na si ñoo xam ne jàpp nañ ne li mu wax nii. Ah, baax na ba beneen ba ki nga xamante ne mooy soxnaam génn bu waxee cas bi dina neex. xam nga dañoo dal bu yàggut dara. Mhm. yu ni mel ñu gis benn xale bu jigéen nekkoon ci biir séyam ba si yàgg mhm. problème am ñu toog ay moment mu jékki-jékki génn wax mhm. bi mu waxee sénégalais yëpp dañoo jël tuuma teg ko góor ñi moo tax li ma la wax nii waa tey góor ñee génn tey góor ñee génn góor ñi ñoo génn parce ñoom ñoo yayoo teel a génn mais mais mais da nga xam lan la def jabaram lan la ko def pourtant bi bi bi bi lee dalee jigéen ñi ba jigéen génn man man fi mu ne man mënuma koo jox man moom mu am dëgg doo ko mën a jox parce que jigéen nga non non du question de dëgg quoi mais li ñu gisagum la ñu mën a li ñu gisagum nii mën aguma ko cee jox dëgg xam nga tax mën aguma cee jox dëgg lan moo du ma ko jox dëgg parce que jabaram waxagul man damay déglu deux versions ma mën a xam bii xam bii traité bii traité bii su ko defee nag ma wax sama aqulaay taalaa mais benn version du ma ci jugé kenn jamais parce que góor ñi dóor saaga xas wéq loolu la ñu yaakaar ne moo yor jabar or que non du noonu. du ñëpp de. déedéet. du ñëpp de déggoo ma la ñu baaraam yi wutee noonu la nit ñi wutee ci kaa góor ñi ci jigéen ñi. pourquoi la ngeen di faral di utiliser waat moo boobu damay gis ñenn ñoo xam ne nii dañ koy euh, instant yi moom moom lañ def seen yitte heure bu ñu xëyee moom lañuy ñuy eseti ay góor du prêter euh, maanaam euh, chaque jour benn insi di insister ci benn wax boobu noonu. góor du projet. Mhm. te lu ngeen mën lu ne góor ñee tax. Mhm. lan mooy góor du projet. non góor projet la ci kaw nga nekk ci sa néegu sëy ku nekk ci néegu sëy laa mën a waxal man ku mu nekkul ci néegu sëy mënuma wax ak moom parce que mënuma la garanti. Mhm. mais jigéen bu ci nekk ñaan nga yàlla am kilifa sa kilifa mooy sa borom kër. dëgg la. tey boo amee sa kilifa nga topp ci ginnaawam di dab ay bànneexam bis bu la ci yàlla mayee doom doom yu barkeel lay doon. wér na. waaye tamit dafa am ci jigéen ñoo xamante ne ñu seen jëkkër egsi balaa ñu koy may ndox mu naan ñu tuur ko àddinay problème li xewoon ci kër gi góor boobu bu fekkoon dafa am yaram sax day dem ba day maigrir day jeex. parce que góor xelam xalaat bu bari xaj. Mm-hmm. góor dafa soxla noflaay ma la faruma ci góor ñi faruma ci jigéen ñi. jigéen ñi nga faral. non man kaa faruma ci nag. faruma ci xay na tey da xëy na may doog a gis mais xale yi jigéen ñi. Mm-hmm. jurul ngeen xoolaat seen toogaay. woote waat seen i mbootaay woote waat si ngeen woote waat waxtaan ci lan ma non maa ngi ñëw bàyyi ma daaneel maanaam ci waxtaan si seen ci seen biir parce que si ci réew mi fi mu nii dañoo gis ni euh, maanaam chaque fois wala chaque semaine mhm. dañuy gis benn sëy bu yëngatu ñu gis ni dañuy gis ni problème am na fii jigéen la ñuy wax mhm. ak boroom këram mhm. maanaam dañ koy gis tout le temps fii ci biir réew mi est-ce que daal heure boo damay suivre waaw sa xalaat damay suivre coow góor ak jigéen daf may jaral su ma wàccee liggéey damay tribunal toog yow li ma lay wax léegi moom laa lay waxaat coow góor ak jigéen bu amee jigéen gi wax parce que damay suturaal jigéen li ci ëpp li ci ëpp mooy góor ñi nga xam dañuy dañuy maltraité jigéen hmm. moo ci ëpp loolu moom je ne suis pas d' accord bien pourquoi pas non d' accord uma ci maltraité jigéen dama ne loolu bu dee am na ci réew mi ku koy def man d' accord uma non am na waaw yàlla xam na ne am na am na du ma ko weddi am na am na parce que man dama ci teg sama bët tegaat ci sama bët ma ko weddi man du ma ko damay dem tribunal di seetaan di ci teg sama bët di xool parce que man parfois bu ma wàccee teel a wàcc damay toog di seetaan ay cas hmm. su ma paree ma xam ma jël ca la ma soxla ñibbi si toog sama kër kaakat nga waaw dëgg la parce que dafa nekk loo xamante ne nii góor ñu bëri dañuy dem ba jigéen dootul am mbëggeel ci ñoom te fekk na ñoom ñoo ko liggéey hmm. te yéen ngi sëy ba tey dëgg la parce que yàkkamti woo sa jabar wax ba nga ne ko mbéj teel te say doom toog xeex ak moom gaañ ko. di koy góor la de am na ñuy def loolu de. bien sûr. mu mhm. ngi ci dëkk bi ba tey. moo tax parfois jigéen ñi sax dañuy ragal a am jëkkër wala boo amee jëkkër ba divorcé da ngay ragalaat duggaat ci sëy parce que cas yu mel nii moo tax da ngay dem ba yow da ngay ragal parce que yàlla mën na la may góor gu baax nga nekk ci. yàlla weddi nga am góor goo xamante ne danga naan beede su ma sañoon ca laay dee ndax kii ma am nii maara day taale kaa bi ni mu amee ci góor ñu noonu la amee ci jigéen ñi. Mm-hmm. am na jigéen ñoo xamante ne dañoo weex ba mel ni kaani mm-hmm. seen jëkkër yi dañ leen takk ba pare mais mënuñu ci am sax bànneex. dëgg amuñu ko ci. dëgg la. c'est l'essentiel daal mooy. Mm-hmm. góor ak jigéen. yàlla moo ñu boole.